Banlieue Production Banlieue Production di seen boo xam ne dafay yëngu lépp loo xam ne da di information moo si man moo si gaaw gaaw leen ngeen abonné ci chaîne YouTube bi bu ko defee ngeen bës cloche bi di am suñu ay vidéo en exclusivité mbokk yi cinéma bàyyi wu ñu dara lépp loo leen di xaar ni information da ngeen koy am ak Banlieue Production publicité pour am visibilité Banlieue Production moo ma si doy jokkool ak service commercial 77 533 17 31 cent wala nga woote 78 211 08 94 ak Bally Production seen qualité mooy suñu mbég sarak bonul du cagatu nekkul nit ku bon waa déglu ma déglu ma dama lay wax déglu ma déglu ma déglu ma damaa bëgg nga xam bu baax fi may waxee gis nga rak boo bokkal ndey ak baay bu àdduna woon yëpp yëpp yëpp yëpp laa lay wax nii ne dafa bon sax ne dafa bon exemple laa la jox ñu suur ko àdduna ak àllaaxira sax yow mii taxul nga warul tax nga bàyyi sa rakk manque de communication ak sa warul tax nga bàyyi sa lool du wax. jikko bi nekk ci no fees dafa nekk ci yow te loolu moo tax ngeen mën a cohabiter loolu moo ngeen mën a nekk loolu moo tax ngeen mën a wax loolu moo tax ngeen am complicité waaw dinaa ko wax dinaa ko wax parce que bu may wax damaa bëgg nga xam fi may waxee fan la. waaw waaw baax na. moom dafa xëy gàddu ay bagages am dem sans raison yow danga ma bàyyi sans raison loolu la. loolu laa lay expliqué ma ne la même jikko bi ngeen yor. parce que moom dina def dara sans raison mais yow di nga def sans raison parce que yow nee nga bonuma nee nga bonuma nee dama laa dama laa def lu bon dama laa def lu bon ci dëkk bi waa déglu ma rek waaw kay. Hmm? léegi nag sarak boo bokkal baay. la koy wax ok léegi gars yi teg naa audio bi nga xamante si nii tàppate leen écran bi teg naa audio bi nga xamante si nii No Face moo ci doon wax ak magam ji ngeen déglu version boobu après mag ju ji mag ji rakk ji dafa rakk jigéen ji jay naa dafa woo mag ji muy 33 minutes ngeen am temps tey déglu ko léegi nag damay ñëw ci No Face déglu leen bu baax eh, laay waxee ak parce que dafa gis li xew ci miyaa gis ak yooyu mu ne naa génn def la même chose loolu laa lay wax te du moom laa lay tegal booba tey. am naa dégg naa bu baax léegi man nag dafa am lu may a def man dama ko bëggul détruire dama bëggul laal famille am. comprendre parce que parce que noonu laa njëkk a def ko man moom moo nekk di détruire boppam moom moo foog ni mun na ma détruire te alors que nax boppam sama conversation ak moom ci lépp bu commencé di wax loo xam du dëgg damay couper sama téléphone. très bien damay coupé sama téléphone. bi ma woowee di wax rafet laa doon wax moom am na ñeneen ñu nekk Sénégal yu contacté journaliste yi naan leen man dama ko dóor dama taw dama doon jël xaalisam. waaw loolu laa la wax ak ak yor ay vidéo. yooyu daal saa yi xoolal bëgguma bëgguma pousse ah. waaw non non non man non non li ma bëgg a mooy maanaam bu fekkee vidéo yi booba takk nga ko mën naa bañ a doon lu garaaw mais bu fekkente ne takk goo ko mu yónnee la ko kon di jigéen ju baax loolu laa wax. waaw waaw waaw xam sax bëgguma bëgguma ñu jugé ko comme jigéen bu bu bon parce que nit mun na def erreur mun na fen mun na def leneen ak leneen comprendre donc li muy moom moo génn wax mais bu génnoon wax man du ko waxal dara parce que ko mos a waxal dara mais moom génn wax transformé ay affaire ci côté am yaakaar ni mun na sosol nit ba nit ñi déglu ko donc comme def na erreur boobu noonu man du ko topp ci dara. expliqué te buguma joxe yenn détails yo xamanteni ne keneen mën ko utiliser contre mom mu yaa ñu yaakaar ne dama la fay wala dama la. ko man kenn mënu ma fay kenn mënu ma fay di ma wax man may xol luma neex ma wax ko ñoom contacté nañ ma mom mo wut sama numéro. wo sama ñaari numéro yëpp di ma woo di ma woo barki dem ba tay jëluma kenn mu waat ma jëluma kenn mu boole ma ak ay cousinam ñu woo ma mu ne leen duma wuyu ñom ñepp wo nañ ma. cousine am may wo rek. ñom xamuñu ma ngi leen poursuivre instant bi nank-nank te man ma nangotul kenn kuy jog di tenir sama image parce que nit ñi wax dafa bari trop trop trop trop trop te vraiment Zainab du ma laaxatu ni takkum parce que koy laaxatu sa njaboot do filmer def vidéo yone ko njabootam pour mu tas ko ci njabootam te États-Unis lañ nek ma du ma dëkk ak dëgg la dé euh suma na ré dekk jigen bo dëkk dafa am ndaw duma ñew bokk ak yow ben appartement seetaan dafa bari doon ay gor la seytaan daa bëri doole. dëgg la donc balaa may ñëw dëkk yow ma takk la ci farata sunna Seydina Muhammad Rasulullah nga xamante ne lépp lu ma ciy def dafa dagan. waaw léegi moom moo dugg ci yow moom moom bëggoon bës bëgg ba ku ku ku ku dugg ci yow bu dee da ko da ko nëbb ay affaire même moom moo nekkul ci dëgg na bàyyi wër yeeg ak fen yi. voilà léegi nag li ma wax mooy dinaa la détruire États-Unis détruire le Sénégal. am na yeneen yoo xam am na yeneen yoo xamante ne bugguma ko wax parce que. dama famille bi dafa am ñoo xamante ne dañoo dama seq ak ñoom ngor comprendre dama seq ak ñoom euh, dëggu parce que dañoo dëggu te mënoon nañ sot sotal sotal Zeynab te bu boobaa man maay am problème barki alxuraanu karim ci famille bi dafa am ñu dëggu ñoo xamante ne ñu ngi wax ak man te xam ne moom moo ma tooñ comprendre ñu de xoolal ñu ngi may ñu ngi may bind message rek ndax vidéo bi ma def naan ma del wax lu la wóor ak del wax lu la nangam wooteel boo wootee Zeynab dina wax faale wu ma leen. bul tont bul tont bul tont man xam nga na lay def bàyyil ma woo seen famille ñoom comprendre nga. waaw wax leen ak yow da nga maa woo te vraiment bëgguma mu dem tamit jéemuma jéemuma sax contacter leen pour xaw ma sax su ma ko defee dañ yaakaar leen menacé ou pas. te alxuraanu karim menacé wu ma mais ba dama bëgg rek affaire yi téla wacc parce que Zeynab jigen la té ñom ñi ngi def lo xamanteni yaakaar nañu mënuñ manipuler Sénégalais yi mënuñ manipuler Sénégalais man dama juggon pour tak ko def ko soxna mu gisuma neexul ci mom sa ay dama ci téla a génnaat bobu nak mu né du am. waaw kay mais lu la neex am nga droit né tak nit soxna bo gisul lu la neexul ci mom nga génn ci. bu dé du jigen ju baax jigen ju bon la wala jigen la go xamanteni day ki leneen nga génn ci lolu kay ñëpp ci am droit. voilà léegi nag li ma wax mooy du demee noon kon dinaa la def lii ak lii ak lii ak lii. moom nag contraire bi la nee na dafa la ñaan baat. Ah. nga ne ko dafa bëgg a tas nga ne ko boo tasee boo waxee lii danaa wane see vidéo nangam moom luy wax. loolu dëgg loolu dëgg États-Unis ku fi nekk boo fi defee loo fi war a def gars yi di nga jëli américain amul caaxaan. waaw caaxaan message am yi ma yónnee xaaral ma woon la pour nga comprendre ki wër ci journaliste dafa dem waa léegi kon mënut a bàyyi télé yi muy wër te suturaal boppam. xaaral ma wala xaaral ma wala rek kii nii nit la koo xamante ne je préfère nga garder ko nag. non non man kay non man kay man kay yow rek laay bu waxee yow pare naaj ci. waaw waa ji nii mi ngi ci ci ci ñi bokk ñi comme ñi genre ñi lay woo. waaw pour pour ternir image waa ji tamit moom tamit noonu la def di contacter journaliste yi ba pare di nëbbatu naan bu leen wax fi euh, source bi fan la jógee. donc kii li dem dafa dafa dafa bëri dafa dafa doy waar ci sosi xam nga nga nekk jigéen nga ne dama ko dóor ba pare daw porté ma plainte ñu may seet dama daw ci beneen état loolu dafa rafetul après ñu ne ku jigéen ki mi ngi waaji suicidé wu ku jigéen ki xam mi ngi dof loolu lañ wax te loolu rafet rek lay def gis nga instant bi tito dakar moomu bind ano bi xam naa ko bu ma coupé yow dinaa ko wane ko kii day fen effacé lépp ma xam naa leen ñoom ñëpp waaw waaw xoolal te te te li ma bëgg rek mooy xaaral ma woo famille bi. waaw laajte bu baax nañ nangu ñëw parce que mi ngi commencé dégénérer li ma bëgg rek mooy ñu gérer parce que jigéen xamul woon li muy def nii te li mu def nii mun na dem ba pousse ko foo xamante ne mun a def naka sudul noonu ba gaañ boppam. parce que xam naa kii li tax bu jamono xam naa ko. donc ni ni ma noonu laay waxee yëpp ne la xaaral ma man kay def ma man dama cee jéemul woon dara sax ma ciy def dara man kay vidéo boobu ma def ñu moom contrôlé loolu laay def mais de sama jéem moo ci woon dara. waaw jeex na loolu la xamante nii moom la noo fees wax ci kàddu yi mu wecceew ak man ci programme bi. cadre Rumia nag man maa ko indi. tuddoo turu kenn de man maa la wax ne manaam maanaam Mia comme seen couple bi dafa rafetoon yow ak Mia ngeen bëggante ngeen def lu rëy nag sénégalais yi naw leen loo gis day am ñagaas ñagaas ma ne mën nga koo jëlaat ngeen nekkaat loolu laala wax man kay may ngi waxtaan ak ah, jëlaat jëlaat ko nag jëlaatal Mia. <laughs> te taay taay eh dafa tàng de gis nga ko taay. <laughs> yow da ngaa nëb miyaa nëboo kenn xam nga ñen ñoo def xale yu jigéen yi dugg ci yow ñoo def parce que ñoom xam na ne miyaa nga bëgg ñoom nga amal njaboot ñuy bëgg lu leen dal ñoo ko seen man de sama wax non la. ah dégg gis nga dafa ñi dafa dara dañoo àdduna moo demee. non non dañoo bëgg bës rek mais seen affaire la bàyyi leen foofu rek dinañ dee de. <laughs> lay jëlal gisee. taa yi ba nga ko bàyyee ba tey barke Serigne Babacar si kenn xamul lu muy jigéen dañ koy toppatoo Mia ah ku yiw la woon di sol yére yu rafet waaw. non non dafa yiwoon barke Serigne Babacar si. audio baa ngi noonu maa ko laal tuuti ci Mia gise noonu cokkaas ko ci xam nga Banlieue production Banlieue production di seen boo xam ne dafay yëngu lépp loo xam ne da di information moo si man moo si gaaw leen ngeen abonné si chaîne YouTube bi bu ko defee ngeen bës cloche bi di am suñu ay vidéo en exclusivité mbokk yi cinéma bàyyi wuñu dara lépp loo leen di xaar ni information da ngeen koy am ak Banlieue production publicité pour am visibilité Banlieue production moo a si doy jokkool ak service commercial 77 533 17 31 78 211 08 94 ak Production une qualité ici nous